salaamaaleykum euh, Sénégal salaamaaleykum may mbokki patriote ma leen di saal kasi naka ma di la jox si wàccuwaay lii nag benn ñaan ba am solo benn ma jox la si bésëb tey euh, di gàmmu gi ngir usmaan Sonko ñaan bu yomb la bu yomb yomb yomb yomb la kilifa gi nag nee na ma fexeel ba ñëpp a jot ko ma nekk bi soobee yàlla dinaa si def vidéo mooy patriote bu ne bu guddi gi tàmbalee incha allah maanaam bu ñuy jullee gee ba pare rek. ku mën a def cent salaatu ala nabi cent salaatu ala nabi allahuma salli ala seydina muhammadin wa salli cent après nga tëjee ka fatiha maanaam bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyaaka na'budu wa iyaaka nastahin bu mu jeex boo paree nga yéene si Ousmane Sonko nga ne Ousmane Sonko yal na ko yàlla génne si loxo yi noonu noonu mm, ak ñi koy jaay doole yal na ko yàlla muccal si ñoom après nga julliwaat si yonente tëj ñaan bi incha allah balaa yàgg dara si kantanu suñu boroom résultat dina am naka patriote yëpp def dégg ngeen parce que bu ñu calculer patriote bu nekk bu waxee sans salatu ala bi loolu rek ab lim la sans salatu ala nabi moo la kurus gi boo wëree donc yomb da jàppale si rek ñaan moom ki ma ko jox moom kilifa gu ñëpp respecté la ngir yàlla jàppale ci sans salatu ala bi après nga tëjee ka fatiha boo jàngatee fatiha nga jàngaat beneen salatu ala nabi tëj ko lépp nga yéene si ne Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla génne si loxo yu noonu mu nekk. ñoo ñooñu koy fexeel ak di ko jaay doole ak di ko bundaxataal di ko toroxal naka patriote bu nekk def balaa dara ñu gis résultat ci kantanu yàlla incha allah balaa yàgg dara dara tuuti ñu gis résultat bu extraordinaire incha allah taxaw leen ci dégg ngeen jërë ngeen jëf patriote